Fini le stress. Que vous soyez jeune fonctionnaire, entrepreneur ou même immigré, le groupe Mac Building vous aide à réaliser vos rêves. Vous souhaitez acquérir un terrain, concevoir votre plan architectural, construire votre maison, trouver une équipe ouvrière spécialisée, équiper votre maison ou bureau, trouver des matériaux de construction, décorer votre intérieur ou même gérer les démarches administratives. Le groupe Mac est là pour vous accompagner la concrétisation de votre projet. Vous estimez ne pas avoir les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

te it ngeen yelloo li gën lobbu maam jaaru du jóg si di indi lu bees di xoolit fu gën a sori alhamdulillahi alladi agnaani wa a'azzani do Tokobay. الحمد لله الذي أغناني وأعزني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 waxlul uqdatam min lisaani yafqahu xawli bokk ñu seetaan ci biir réew mi ak ci bitim réew asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. TV seen jotaay mu tudd alxalam ngeen koy am àllarba jot ci waxtu wi dellu si na jëloon ko defal si alxalam ay jotaay la yoo xam ne dañ ciy jàng ay njàngat yu jëm ci wàllu culture islamique ak yu ni demee waaye ci jamonoy. aj geeg jamonoy tabaski geeg jamonoy ñibbisi ujaaj yi ñu joyal waxtaan wi jëmee ko foofu ñu tolloon ci ay bis gi nu génn naka la nit ki xame ne ajam gi nekk na xajjan mabruur wala mabruura ñu doon indi tomb yooyu nga xam ne ci la koy xamee maa ngi ko tàmbalee woon ci euh, ujaaj bi jóge màkk rek ñëw daa di tàmbalee sellal sellal te mooy lu muy defati yàllaay tax lu muy waxati yàllaay tax dootu dugg ci ay tappale wala ay waga jaa nekk njuuj njaaj dootul njistal loolu bu ujaaj bi tàmbalee man lool rek na yëg ne loolu màndarga la ci aj goo xam ne gi xajjan mabru xajj mabruur la bu ñaaral ba ci bind beesu mooy topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci sunnaam si ca màndargay la bokk ñetteel ba mooy mu waajal boppam ba bi mu ñëwee léegi nag mu tuub soppiku changé ñeenteel ba mu neex a dëkkal ndax jikkoom yu rafet jikko yam jële ci aj ga waaw ma tolloon ci nag bokk na ci ki aji makka ba ñëw te ajam nekk mabruur day doon koo xam ne kii day tabe duutul xeeb njëkk laa taxqiranna min al maarufi shay'an duutul xeeb njëkk eh, tabarakallahu defal ko nit ñi lu ko ñu defal ci njëkkit du ko xeeb waaw loolu am solo la eh, bokk na ci ni ñuy xame ne aj gi xajj mabruur la mooy ujaaj bi ñëw rek tàmbali xër ci anwaa u taat anwaa u taat maanaam lépp lu baax rek boo demee fekk ci alaaji wala aja luy safaan nag alaaji ajaa moytu ko waaw ndax bi nit ki di aji màkka am na lu ko borom bi tere woon subhaanahu taala nekk woon falaa rafasa wala fusuuxa wala jidaala fil xaj yooye mu bàyyi woon ca ba muy aj bu delsee day continuer nekk mel noona moo tax yonent bi ne képp ko aji màkk te deful rafas deful fusuux deful jidaal moog liir buy door a judd ñooyam ci bàkk ci ñàkk bàkkaar waaw rafas nag mooy waxtaan diggante jëkk góor ak jigéen mooy rafas fusuuq mooy def caay-caay goo ji daal mooy werante ñett yooyu ku leen bàyyi ca aj ga del si continuer ko yëgal ne sa aj mën naa nekk hajj mabruur waaw nga xam ne laysa lahu jasa ilal jann juróom-ñaaral bi ci ni ñu xamee ne kii ajam gi nekk na hajj mabruur mooy li ne ci aj ci secret li na ci at ci enseignement tàmbalee def ci ujaaj bi ay yëg-yëg hmm? ujaaj bi yim romb yëpp ci ay manasik ay aradil muqaddasa dañ doon def ci moom dara maanaam tey <clears throat> su imaam Ablaye Ndaw ca ndànd jëlee otoom indi ko Dakar yët ko ñuy defar oto <clears throat> oto bi dafa am lu ci tôlier def oto bi daa am lu ci mécanicien di def oto bi daa am lu ci électricien yi def oto bi daa am lu ci vulcanisateur di def ñett ñeenti ñi bu ñu jàppee oto bu ñu ko bàyyee bu génnee rek day mel ni oto buy door a génn ci usine ba ñu teg ko ci tali bi muy daw ni ay muy daw ni ay moromam waaye su fekkee ne jaarul ci ñeent ñooñu ku ci nekk def ci li nga ci bëgg a def mën naa am am lu des aj màkk nun la mbokk yi ma waxaat ko bu oto duggee ci gaaraas dafa am lu tël def am lu électricien di def am lu vulcanisateur di def am lu tël mécanicien di def ñii bu ñu defee ku ci ne def la mu a def ba oto biir foofu bu génnee rek bu tege circulation bi dana mën a dem kuy aj makk dafa am lu lu madinay def ci moom madina da koy tollier da koy tolori kuy aj màkk daa am lu madina di def ci yow ah waaw waaw boo demee baqiya dafa am lu muy def ci yow nga dem euh, uhud mu am lu muy def ci yow nga dem xubaa mu am lu def ci yow xibla tey ni def ko rawatina nag al masjid nabi ba nga xam ne falaa alayhi salaam tëdd moog ñaari xaritam yi Abu Bakar ak Omar kon Madina daa am lu muy def ci aj ujaaj bi bu ci noppee nag daal lay paas biir Ali tey usines yi noonu la boo demee fële ca ba maam jaara Euh, yal na yàlla yokk seen chiffre d'affaires soqali seeni mbir ba demee lob maam jaara dangay dem fekk euh, ñu tàmbalee gaz bi ci zéro defar xottu gaz bi dugal ko ci ndox sécuriser ko nangam nangam ba ba ba loola àgg ñu koy paasante ba mu jeex takk mu àgg ci ña koy pentir ñu pentir ko ba mu rafet ñu jël ko ci benn barab jël ko nag door ci sol gaz sol ci gaz ba noppi tëj ko tuur mu tëje ñu jële ko foofa daal di koy teg nag ci barab dora ko fa jële teg ko ci oto yi oto yi yóbbu ko ci kër yi jeeg ji togge ko allahu akbar ujaaj bi noonu la ujaaj bi noonu la bi mu noppee madina madina daf koy paas biir ali biir ali na ko sumeekul mu summeeku woddul mu waddu sàngul mu sangu julil ñaar rakka mu julli labbaykawul mu labbayka tànnal genn aj mu tànn ko foofu dafa am lu muy def moom tam ci ujaaj bi allahu akbar fa lay dindee fa lay dindee naafiq fa lay dindee eh, ak rëy fa lay dindee tiitaroo ak col yu baree bare bari su noppee nag mu daal koy paas nag màkka Madina noppi na daal di paas ujaaj bi makk bi ujaaj bi ak agsee makk mu dem ca kaaba ga tawaaf am lu kaaba gi def ci moom moom it ndax kii tawaaf kaaba gi ay xeer lay tawaaf kay kay sànni jamra ay xeer lay sànni jamra waaw dooro lu tax kii sànni xeer di fari xeer di sànni kaaba gi ñu di ko wër mooy xeer yi ci kaabu gi dañoo nangoo ànd nekk benn ànd bi ñu ànd nekk benn may leen force ak doole da nga ñëw wër rek te leen fa xeer ya nekk Musdalifa ñoom nanguwuñoo ànd nanguwuñoo nekk benn ginnaaw nanguwuñoo nekk benn nag moo tax foofa leen di fekk for leen sànni leen ñu gën a tasaaroo ujaaj bu ñëw for fa juróom-ñaari xeer minimum sànni leen ñu gën a tasaaroo kon ñàkk a nekk benn day tax a gën a tasaaroo nekk benn day tax a gën a ànd moo tax xeer ci kaaba gi ak xeer yëla ca musdalifa bokkuñu sunu magum daara mu ñuy wax eh, mu ñuy wax alxaaji lemin Ñang ñu gën koo xam ci Lamine Ñang bu jidda jiite almuhaajirun wal ansaar danañ ci faral di waxtaan lool tabarakallah yàlla na ko yàlla yokku wér waaw borom xam-xam la bu am solo macha allah yàlla na yàlla yokku ko wér xaaji Lamine Ñang bu jidda Euh, almuhaajiruuna wala ansaar <coughs> léegi su ujaaj bu noppee ci tawaaf bi mu dem maqaamu Ibrahima maqaamu Ibrahima am lu mu def ci moom ah waaw maqaamu Ibrahima sunu borom ne ku tawaaf ba noppi wattaxizu min maqaami Ibrahima musalla balaa kenn dem na fi def ñaar rakk ñaar rakk yooyu moom ngay confirmer ñaar ràkk ya woon ca biir ali hmm? la nga fa jàngoon nga fay jàng ñaar ràkk képp ñaar ràkk képp te maqaam ibrahim ibrahima kenn la ci jaami yàlla yu ko nangul wéetal ko wéetaay yu am solo lool moom ibrahima alayhi salaam hmm? waaw waaw wéetal boromam lool tabaaraka wa bu fa jullee ñaar raaka def benn rek benn def benn déclaration déclaration bi dafa la war a topp ba baa ngi sàngoo suuf qul yaa ayyuhal kaafiruun laa abudu ma taabuduun wala antum aabiduna ma abudu wala ana aabidum ma abadtum wala antum aabiduna ma abud lakum diinukum waliya diin loolu daa am lu muy def ci yow lu am am solo eh, ci aj gi mbokk yi maa seen jotaay bii di alxalam maa ngi ci ujaaj bi nan lay xame ne ajam nekk na xajj mabruur maa ngi ci mbóoti aj philosophie aj waaw secret aj ujaaj bi bu demee di naan zam sam naan zam-zam am na lu muy def ci moom ndax dakaara ak yaa ko ndox cil ma xam mbaakol am na ndox calleeg calaag ak duy sangu ak tay ba cekkeen ñépp am nañ ndox waaye zam-zam mii nag ndox plus la dafa man li ndox yi man ba noppi man lu ndox yi mënut zam dafa man li ndox yi man ba noppi man ndox yi mënut ki koy naan mu yëg ni dafa am jeeg bu ñëwoon Makka ànd ak doomam ju ndaw ñu ñàkk ndox topp lu jëkkëram tax yàlla walloo ko am ndox ndox ma ball ca tànki liir ba ndox ma di fa nekk ba fii nu toog tey ñuy root di yóbbu Madina di root di yóbbu feneen ujaaj bu ñëw root yóbbu mbokk yi ñetti millions yi ujaaj ujaaj bu nekk jël juróomi litre yi ndox <laughs> loolu de xam naa ñoom professeur daañ ko mën a calculer xam nu mu toll ala xaal ujaaj bi zam-zam am lu mu def ci moom mu jóge fa dem doxi safa marwa safa lay tàmbalee marwa lay jeexale ndax yoon bu mu dem rek benn la waaye mbokk yi dem ba màkk di baagante ay diggante xeer di jabutu léeg nga yokk sab dox ñukk bu la jàngalu dara xamoo li xew bu la jàngalu dara xamoo li xew sàllaaw at mi ñu umra jee njëkk a dem màkk ànd ak sunu waajur wa alaaj njaga njaay bi ñuy dox safa ak marwa ñang fa dajeeg benn boxeur bu tudd Muhammad Ali muy dox safa ak marwa ndeysaan muy dox safa ak marwa bëggoon naa dégg anglais ba wax ak moom mbaa ma xam ne dégg na arab ma wax ak moom mbaa wolof waaye daal daje nañ fa waaye foofa lañ fi jànge mooy Muhammad Ali président ku mën a doon ministre ak député ak gouverneur ñëpp a fa bokk yem àndoon naa fa ak sama xarit gouverneur Zakaria jaw yàlla na ku yàlla yokk wér waaw gouverneur Zakaria Diaw waaw cey suñ aj googu yàlla na ko yàlla yokk wér gouverneur Zakaria Diaw ñu tase ci xew-xew yeeg ñoom seen yooyu waaye daal gouverneur ak préfet ak sous préfet ak ñëpp a ci bokk yem noo bokk nañ koy defe waaw alxalifa sëriñ baara rajala anhu moo daan wax ne moom di jaamu yàlla yépp a ko neex waaye aja ko gën neex mu ne jaamu yàlla yépp neex na ma ñu naa mu ne waaye aj de moomu ci gën a neex ñu ne ko lu tax mu neex la mu ne du dara kat lu dul yeneen jaamu yàlla yoo ciy def mën naa am ni ñu jàppale la ja waaye aj màkk moom yaay defal sa bopp nee na luloo ko ci neex <laughs> ndeysaan radiyallahu taala anhu bu ujaaj bi demee Muna daa am lu Muna war a def ci moom yendu cib àll fanaan fa xëy fori xeer sànni yenduwaat cib àll fanaan fa xëy fori xeer sànni yenduwaat cib àll fanaan xëy fori xeer sànni loolu bu ci nit jàngiwul dara lu mu fa doon wut lu mu fa doon wut te it ay xeer di sànni ku ko def dakaar gi sapeur yi jël si la waaw for ay xeer di sànni nii ku ko gi ay ay sapeur jël si la foofa nag da ngay ay xeer di sànni mu saf xorom mu saf xorom ngay for ay xeer di sànni mu saf xorom kon ki fanaan eh, muna yendu fa xëy fari xeer sànni am na lu ca jànge waaye yoon wu njëkk wi dangay ngay fanaan xëy dem arafa sànnee goo jamra dem arafa ci yëpp àll boo xam ne bii tabarkàll mooy loolu ujaajaa nga ñee ngay yendoo dox ñee nga yëg ca montagne ñee nga jéggulu seen borom ñee ngay jooy ñee ngay saraxe lu ne nit ngi ciy dugg ba jant bi so loolu tam boo fa jàngul dara jëru ko woon nga jóge fa timis jot ñëpp jëm almusdalifa waaw almusdalifa doo fa fekk basan amul ay tànt nit ñaa nga groupe loo léeg-léeg nga agsi ak sab coono waaye du tee fa nga jullee timis fa nga jullee gee te boole leen ñoom ñaar timis ngay sëlmal teg ca gee timis ñett ndax timis kenn du ko wàññi gee ñeent nga daal di safa witar mos tuuti bu fekk am ndaw ko ndaa nga daal di noppalu ba ci kanam nga door jóg jàll kon loolu am na lu mu war a def ci yow ujaaj bi boo fa jógee ca Musdalifa far fa juróom-ñaari xeer mbaalu këpp sax bu la neexee nag daldi fay jógee nag dem ca jamaraat ya fekk fa ñetti jamra nga ne jenn ji dama lay romb yu ñaareel ja dama lay romb ju ñetteel ja nga door a taxaw sànni ko juróom-ñaari xeer xeer wooy sànni ne bismillah daal ni allahu akbar daal di sànni xeer wa mbokk yi loolu loolu mooy li aj màkk bëgg a def ci nit tëggaat ko defaraat ko mu del si nekk keneen waaw moo tax may wax ne booy sànni jamra boo jëlee xeer ne bismillah daal ni allahu akbar rikk jikko ji nga gën a bañ ci sa jikko ji na topp xeer woowee deuxième xeer noonu troisième noonu quatrième noonu boo sànnee sept xeer boo dindee sa jikko yi juróom-ñaari jikko yi la gën a déranger léegi tey nga baax mbokk yi ku ci nag ñun am na ay jikko yoo xam ne bëgguloo ko fexeel ba jikko yooyu dañ jikkoy mer jikkoy rëy ji koy tiitaru waaw ji koy bëgg adduna ji koy tooñ ji koy lammiñ wu wu ñagas yooyu yëpp nga bàyyi ko fa boo sànnee jamra ba noppi nag ci bisub tabaski bi daal di waaxu nag jëm ca kaaba ga boo demee tawaaf waat ko ndax ñetti tawaaf ñoo am xuduum ifaada wida ñett yëpp nag ñoo bokk nuñ koy tawaafe juróom-ñaar la ca alxajarul aswad ca ngay tàmbalee ca ngay jeexale di jabutu loo bëgg a jabutu mbokk yi aj màkka yàlla na ñëpp am xaj mabruur ah moo tax aj màkka wuute na lool ak yenn tukki yi moo tax ko xam li aj màkkay def boo ko defee cew boo boo ñëwee say bokk gërëm la te say bokk daañu xam ne da ngaa aji woon ci des yëpp nag tabarakallahu amul solo yal na yàlla defal leen xajjan mabrura defal nu ko defal ko képp koo xam ne kii eh, solol nga saw dàll solol nga say yére jëlal nga say bagage dem ci aj ga ñaan sa borom mu defal la xajjan mabrur bi nga xam ne lay lahu jaza illa al jann tabarakallahu Ali Imran TV mi ngi leen di soññ ci abone ak aimé ak partager ak participer partager mooy vidéo boo jot mu jàll participer mooy boo boo boo boo bu weer wi deexee la ngay dugal ci ca ca ca ca weef ba mbaa ca orange money ba nga dugal ko ca loolu mooy participer participer tam bokk na ci fexe ba ku la jege nga dugal ko ci yëf yi jaajëfal leen jaajëfal laay mi nekkoon ci caméra bi jaajëfal mboolem ñu seetaan ci biir réew mi ci bitim réew lu jub ci wax ji sunu borom lu ci jubut du mooman mieux yal na yàlla defar seeni mbir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 jeeg bu siis moom mere stress boo koy seet bett kaa ci gën yow mosal ku ko mos tàkkamtiku variété punch ma dàkkal teranga punch lay waaw li mu saf ku ko naan na ko xam. yu mësal ku ko mës dàkkam ci ko variété ba ci ma dàkkal moom rek lay yu mësal ku ko mës dàkkam ci ko variété. ak pënc rek teraanga fii la fekk baax.